doomam ngeen daanaka combat bi si émission la taxawee mu def analyse am lu rafet lu mu wax ci yow lan la lay def en tant que mbër bu am avenir ci làmb. ah loolu dañ koy sant yàlla rek Père dafa baax rek nekk suñu papa ah, waaw dañuy door ay conseil bu baax a baax waaw. Uh-huh. mais Ada yaa ngi waxtaan ñi la wër nee na ma ñi nekk sa ginnaaw sax ñu ci bëri xamoo leen. non man sama encadrement dafa yaatu. waaw ah, dafa yaatu trop trop trop macha allah. yaa ngi ciy bàyyi xel bu baax a waaw ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax. saa liggéey ñu ngi liggéey bu baax a baax. moo tax dafa yaatu. dafa yaatu. dafa yaatu. waaw uh-huh. Uh-huh. li ma la bëgg laaj en tant que doomu Fass ama Fass ku ne lamb ne Fass Mbaye Gueye Dafa Gueye tey nga judduwaat macha allah nekk doomu Fass di représenté Fass Fass yëpp jóg topp sa ginnaaw loolu lu muy def ci yow nga gis su démb Dafa Gueye bi ngay tus daa ñëw taxaw loolu soose ñoo ñëpp ñëw toog. ngir yow loolu lan lay def ci yow en tant que xale. ah loolu jom la rek jom ak ful la bu mat sëkk lay def si ñun ndaxte loolu yombul ñaan doon nañ doon nañ ñaan loolu yàlla suñu borom moo ngi koy soog def ñoo ngi koy sant yàlla bu baax a baax a baax. yàlla na ko yàlla may ndam dimanche incha dubul moo ñu fi indi ah, may conseil borom baax la waaw di ko ndam rek xalaat nga ko combat combat ma Quench gaawee comme ni sa combat gaawee démb incha allah rabi champion la jàmbaar la suñu grand la dañuy conseil bu baax incha allah <laughs> combat dinaa la laaj leen kera am na loo xam ne am na sa open press mm-hmm. open press nga pare press bi di xaar nga wax nga dem gars yi mujj dem ñoom tamit mu andi benn saar ñàkk a déggoo loolu loo ciy wax tey presse bi. loolu dañuy tëb di jégalu ñun presse bi ñu lañ fi nekkal ñun ñoom lañ fi nekkal ñu ngi jégalu bu baax a baax presse bi loolu noonu nekkul suñu sago ndax dem mbooloo bi ñoo bëri woon waaw mu bëri woon ay rumbaay moo tax loolu mais ñoo ngi jégalu bu baax a baax. Mhm. kontaan jaajëf. waaw bisimilah bisimilah. inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. kàttan ak àllama Cheikh Amadou Kara Mbacké gannaaw bañ sant yàlla jur ci yonent bi sant suñu ñaari waajur dañuy sant ñu fi teew ñëpp di nuyu ñu fi teew di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi waa Touba waa Ndiassane waa Tivaouane waa Kaolack waa Canaba di nuyu ñëpp di jaale képp koo xamante ne tey jii nii génn nga àdduna waa axlu lamb ñu ngi fay jaale di ko jaale waa àdduna di ñaanal yàlla ñu fi des yàlla yéexe leen te bàyyi leen fi ba ci kanam ak kanam waaw déglu ma c'est pas Touba war a daje ci nga xamante ni xam nga xale bi nga jël doomu Bargny. yàlla rek ñu ne xale lañ bàyyiwuñu xel sax dugg ci écrit duggaat fa bàyyiwuñu sax xel loolu ñun Dakar Plateau lañ dëkk si taan bi lañ dëkk kon suñu adversaire ñoo nekk ci banlieue bi ñu bëreeg ñoom moo tax duñu bàyyi xel sax ay dugg ci écrit génnaal fa dugg ba. suñu adversaire ñoo fa nekk ñu ñoom rek waaw laa moo ñu ñoom ñu ñoom parce ñun waa côté bi duñu bëri suñu biir parce boo ñëwee Joppane président yi fi nekk gis fi waa Bawol gis nga fi fi waa Médina fi waa Gueule Tapée gis nga fi waa Colobane gis nga fi waa Niayes Thioker gis nga fi fi waa Sandiara gis nga fi waa fi Ndakaaru Dakar ba Cap fi ñëpp kon keroog ci signature bi ci biir Bantamba TV da nga ne combat bi di am dina dina am xeex bëri est que mën nañ xaar loolu. waa loolu lu leer la li ma waxoon laay waxaat rek ñun ay ndaw lañ préparé ñu war a pare liggéey nañ ñu war a liggéey amaana li ñu pare pare ñu sax pour euh, combat bi pare wuñu sax pour combat bi nii li ñu liggéey du sax pour combat bi nii xëy na adversaire la boo xam ne làmb moo ñu boor ñu war a bëri rek nee naa ko wax ji du mu bëri sama moom. mu ngi génn ci site internet yi nag di wax boobu ba léegi kenn gisuma fenn wax ji du bëri lenn laa seq ak moom mooy dimanche 27 arbitre sifflé ma duma ko daan ko. Double man bu fekkoon dara am naa lu mel ne. ak dégloo ak dégloo ak dégloo. ak dégloo ak dégloo ak dégloo. mbër moo xam ne maanaam da ngeen di bëri. maanaam moo la jiitu si làmb depuis 2009 mu ngi ñëw nga ñëw 2015 am na ñu bëri ne nañ dafa retard moo tax mu jël la ñi di wax ne moo la dàq bëri yow kera seetaan nga ko ma laaj la nga ne waxi dof lay wax ndax waxi dof jooju muy wax ça veut dire que kon da nga jàpp ne moom bëre boobu ñu koy jiiñ wala mu jàpp ne yow yoon woo maanaam adversaire boobu nga boo xam ne day jaaw day jaar jàll waaw Babacar wax nga wax ji waaw làmb gëm-gëm la te ñun dañoo gëm suñu bopp moom 2009 la dugg si làmb boobu léegi ñu ngi béy suñu waar yaa ngi dégg dañ ko fekk si yoon bi dañ koy pousse continuer suñu yoon amuñu dara lu ñu sikki sàkk moom wala lu ñu xel ñaar si moom waaw loolu kese la mais mais est-ce que pousse Quench yomb na parce que Quench mbër la mi nga xam ne bëre moom ne nañ mën na ko lool yaa ngi dégg am na ñoo xam ne sax jàpp nañ ne bu ngeen jaxasoo ci wàllu bëre Double Moteur mën na man na am ay jafe-jafe est-ce que loolu yaa bu jëfee si ñu teg suñu ngeen bu bàyyi bëre parce que dafa am suñu wax naa la ko sànq si biir wax Babacar booba léegi moom mi ngi gën di wax gisoo ñu fenn ñu gën ñu teg wallaahi azim du ñu tëdd sax boo koy xalaat wala ñu koy sikki sàkk moom uh-huh. te la set yaagatul la lay leer incha allah rabi uh-huh. dañ koy ñaanal jàmm nag uh-huh. ñaanal ko suñu bopp ba la set incha allah combat bi lan moo maanaam combat bi lan moo koy gagné lan mooy gagné combat bi est-ce que Double Moteur tamit xam na niveau combat bi muy bëre maanaam niveau bi combat bi fan la ko mën a yóbbu combat bi waaw xam nañ ko bu baax. Ah. xam nga moo tax préparation bi sax bokkul ak yeneen préparation yi ndax combat bi ku ne xam na ne yàgg na def na at ak lu tegu presque deux ans ñu daj si ay sacrifice nag laqatu sunu ruux daj si ay coono def ci xaalis bëree bëri ñu ci profité tamit di ci sandaale ku ci mel ni Abdoulaye ak borom Somone parce que tamit tyran bi ñu nekk foofu noonu yëpp mu ngi ñuy taxawu lépp lu war si ñun manqué wuñu nekk technicien ay conditions yu bien di yëkkati xaalis weex daal di ko def si ñun ak maire Somone bi Bokar Sadj xam nga. ak ku ci mel ni tey jii nii euh, Cheikh Fall aluminium bu nekk Somone. mais moom nee na da ba Somone dëkkam da ba dëkkam laa. waaw loolu lay wax la rek fii làmb ñëpp xamante fii ñëpp xamante man li ma xam bëri du ma ko wax. yaa ngi dégg parce que làmb ñëpp xamante yooyu amul sens. Somone ay nit yu baax yu may jàppale taxaw ma. ma gis ni ma taxaw ci combat bi jàppale ma. leen di woo nag ci combat bi aussi tamit ku ci mel ni seen monsieur le maire ku ci mel ni Cheikh Fall aluminium ku ci mel ni. kii euh, transitaire xam nga. xam nga ne ki ngay bëreel xeexkat la est-ce que yaa ngi bàyyi xel xeex bi. waaw pare nañ ci ñun liggéey nañ lépp lu ñu war a liggéey ci côté xeex bi ñu ko def bëre bi pare nañu amuñu dara lu ñuy sikki sàkk ci moom ñun laaj ñu ko dara leen lañ koy laaj moo ñu dëggal boobam taxaw loolu kese lañ ko sant ci combat bi sant ñu boo gisee woyu. si nee na si nee na. yaa ma ñëw si nee ñaata kaar la mobilisé yu war a jóge par ñi. a ngi tënk loolu a noonu li ñuy wax du bëri suñu papa Abdou Khadir Gueye ngi nii moom dañ koy sant di ko gërëm. futur maire. yaa ngi dégg futur maire mu ngi nii taxaw yaa ngi tey ku ci mel ne ay Baba Touré ku ci mel ne suñu papa Diop si. boo nee mobilisation ci rëbës la fekk baax ñoom nag benn message boo xamante ne daf ñu metti ñun ay doomu Dakar Plateau lañ ay doomu dëkk bi ñu nekk fii ci gox bi suñu maire Alioune bëri naa onze combat musuma may cent franc waaw loolu dama koy wax mu koy dégg wax naa comme moom nag mu koy dégg jàkkaarloog naa moom wax ko mu koy mu ne ma dina ma jox rendez-vous am ñu ma boole si ay nitam ma di woo mais dañ may dawal fem te man du ma topp ci ginnaaw kenn di dañoo nekk Dakar Plateau juróom bi yoroo bi màggee bi nekk ay doomu gox bi nekk ay porteur de voix mën ci réew mi dara kon ñun suñu jugee ñoom dañu war a dooleel ñoom dañu war a dooleel yaa ngi dégg dañu war a dooleel mais gisuñu sunu bopp si maire bi Aliou Ndoye man gisuma sama bopp ci moom yaa loolu dama koy message la nag bu may laata pour mu dégg ko su ma jàppale dama war a jàppale su ma jàppale dama war a jàppale parce que man bi di ma jàppale ñii di ma jàppale du ma leen yemal ak lenn ma leen yemal ak lenn ku ci mel ni Abdou Khadir Gaye mii ku ci mel ni ministre Mame def ko incha allah en tout cas ñun sax ñu ko dara lépp lu fay am ñu ñoo koy def ñu ñooy ñoo koy waaw. waaw. ñëwal rek. léegi da ngeen ñu may rek ñu am benn question bu ñu ko laaj. duubul. est-ce que du duubul boobu lañ nar a gisaat bii di ñëw est-ce que yaa ngi suuf ba nii. loolu ñaan ñu ko yàlla. loolu ñaan ñu ko yàlla. waaw loolu ñaanuñu ko yàlla ñu ay xale lañ te xale du juum ñaari yoon waaw loolu nag lu mënul woon ñàkk la suñu carrière waaw fàtte nañ ko ba ba léegi ñu ngi nekk suñu yoon di bay suñu waar te am naa yaakaar ne tamit màgg nañ ci làmb bu dee ab suul ndax am na ñu nekk suñu ginnaaw ñoo xamante ne tey jege doyloon nañ leen te ñu ngi ñuy teg ci code kon am nañu yaakaar bu baax a baax a baax loolu doonuñu dal incha allah rabbi. mais ci noonu la sax doomu ndey ñëwee El Hadj Keita. ane El Hadj ane El Hadj Keita ane El Hadj. El Hadj kay kay kay kay. El Hadj waaw doomu Medina di doomu Ndakaaru doomu àdduna. ñu koy ñaanal may kontaan ci moom bu baax a baax a baax di ko sant di ko gërëm. El Hadj su waral teewaay bi tey. El voilà. waaw ah, sama teewaay. double moteur sama xarit la. yàlla dafa def man ak moom depuis ba mu nekkee double moteur ba léegi dañuy jokkoo dañuy woowante téléphone dañuy waxtaan téléphone saa yu amee combat daf ma koy wax man tamit lu may def da ci dugal loxo moo tax tey ma teew fii pour dooleel ko wax ko ni El Hadj Keita bi ci ginnaaw dugub bu tënk yàlla na ko yàlla may ndam jaajëf. waliyaanooy waliyaanooy kuy bare da ngay daal daan warul ku daan da ngay féete kaw bëri leer sama ndaanaan baa ngi nii dugul moteur bakk naa la gis naa la doomi garmi di ñeme jam jam sama champion wóolu naa la waaw wuy Denis naa ah, yal na la yàlla may ndam. man maa woykat am naa léegi woykat. di koy sant bu baax di leen taxawaayam. waaw di sant sëñ Sidi Mbacke alxuraan bu baax a baax. loolu jàmm nañ si daan baax. sëñ Mbaye Wade alxuraan. di koy sant bu baax a baax a baax. loolu yàlla ay kese. di leen taxawaayam. waaw xam nga di sant tamit ku mel ne sëñ Fallou Barake. di sant sëñ Abdou Karim borom Mbacke Aliouma di koy sant bu baax. di sant suñu sëriñ maam Thierno Mbacke maam. man Thierno Mbacke imaam ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax. ne ko ne ko mu génne la lii Serigne yaa ngi dégg man Thierno Mbacke imaam ñu ngi koy sant taxaw bi. wala ma yàlla mer sant ci kaw. waaw xam nga Baba Touré. di sant tamit di sant tamit Baba Touré parce que bu mu jàppee ba tey baawul. ñu koy sant bu baax a baax a baax ba nga ñu sant suñu kàddu parce que moom moom teewul suñu papa Diop si. te bu nga xam ne Diop si mooy suñu lépp kon bu fi teewee tey jii nii ba du Diop si lañ koy xoolee bëgg nañ tamit ñu may ko mu sànni kàddu tuuti waaw Let's go.